bio naturel mbokk yi les jaaxle jeex ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi mala ko wax probio naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé daf lay renforcer carrément ci walu sey tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële koy dégg rek probio naturel simpi bi nak bi nak moy topoto sen yaram ci walu yax Manam. Bolem lu ngeen amone ci ay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 Oi. Oi. Sonnenak. Tá indo embora, Sonnenak, sonnenak meu bem. Oi. Hum. Oi, Nene. Oh. Oi, Asma. Eu acho que eu não vou meter. Oh, uau. Ah, não, não, não. Ah. Mas... Eu não me dá, né? موجود دكتور موجود دكتور déedéet bësal ma rek. bës bu ko bàyyi man yow wóorul. waaye déedéet xaar rek ma woo ko mu gën maa ngi bu ko woo. maa ngi allo waaw. docteur. dama ma ni. dama am benn malade kër ga yaram bi oui mi ngi gitu rek di onk man ragal est-ce corona wu. Hmm. ah waaw yaram bi tàng waaw jël cinq piqûres. ñu indi ko. Hmm? waaw baax na maa ngi wax ñu indi ko foofu. ah waaw ah, ah, d'accord ok. ba damay dikkee rek say naa. léegi ak xaaral ma woo ñu ko bàyyi ngeen ànd. déedéet bàyyi boo demee jël juróomi piqûre. déedéet man feex naa de. déedéet feex naa dama waaw damay dikkal nag. dikkal damay jékki-jékki rek. loolu wóorul parce que da lay dikkal fajul benn yoon. ñu ko bàyyi. bàyyi ko. waaw kaay. naa naa. waaw mooy kii. yóbbul ma na na ñëw leen mu jël jur cinq piqûres parce que yaram bi daa tàng jël. cinq piqûres waaw. ok dama gaaw. feex naa. feex demal feex naa de. lay demal feeñ na sa kanam. ñaata def. cinq rek. cinq ndax moo gën a wóor waaw. 6 ans rek te da nga feebar kañ fa piqûre non météo. da ngay gàtt feebar rek du dara lu dul bëgg ma làmb ba rek xool.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 dégg nga taxawal ma xam taxawal déglu ci docteur bi. eh jëmb fa da ngaa feebar de da ngaa feebar daal kañ nga ma fay ji. dara dal ma. lan eh xamal la yow jëmb xamal la ma fontoon rek léegi nga xamal la. dafa am lu ma enquête. Kumba nee na ma yóbbu la hôpital nga faj ji kañ nga ma fay ji. jëmu ma. dégg nga dem ci nii bàyyi ci naan nag. moom faj na ma. dara faj dara dalu ma. da ngaa feebar nag. non feebar ma loxo bi daa mel ni mu teggeeku loxo bee sedd xale bi loxo bi comme glace. mais jëmb yow xanaa wóoroo. yow weeru koor mag mu toll nii yow. muskal la fi nga def defi na ay ay xale bi ay xale pour lan jëmm ci pas pour kii. xam nga li sama fàtte nga ni bokkataan yow li mu doon. xam nga li sama problème teel a judd gi ma teel a judd. teel a judd yow ngay magum jëm. waaw moo tax ma teel a judd gi ma. kon nag xamal xamal la boo fejul daa naa wax kumba léegi ne ko fajoo. wuy ma déggu ma dara déggu ma loo xam ne dara dalu ma man xale bi loxo bi ma doon tegal ma doon raay. Ah. lamb lamb yi. ah kon raay kumba yi moo la neex. kumba dina ko dégg nag. na dégg xaaral. yow da ngaa mën a fenn eh caay. kumba wuy ma mi ngi nee na daajatu ko. lan sànq raay nga raay fii nee na moo neex ndax ma su loxo daa sedd ak comme frigo wax nekk de ko kii. kii lu ma jaxase ak yow rek. ma tàpp tee moom yàlla feebaru daa ko mi ngi na yàlla kii du wax ci sama del bii lu rafet. yow xam nga yow lan mooy sa problème. da nga di mag te defoo yu mag. yow sama loxoy la ban problème mom nga ci am mhm. ak lan nga am yow pour bëgg ma ray la mhm. lu la neex motax ngay créer fièvre ci sa bop yow nit ñi ngi fièvre di ñaan yalla di wër mhm. ah sa ñu yéwo tek seen tank naan yalla na ma yalla mussal ci fièvre yow nga jël fièvre daal di koy teyé di ko di ko di ko fowé mba xam nga ni di nga piqûre yow bu la léré ni di nga dem ci hôpital ba piqûre rek muy sa jamm ci wéru koor gi mag mu tollu yow na génn na dem yobbu ko mu dem piqûre ji ci hôpital ba di nga dem ndax yaay gatt nga fièvre ci yow kii xoolal yow yow yow yaa dem woo sa waa ji ma ma zéré ko man ak moom dama sa waa rek. dinaa ko woo. demal ba ak moom demal ki ba ak moom maa woo waa ji rek dina pikiru ci nii bàcc naa. allo yow voilà woo ko woo waa ji rek. kaa jàpp ma kaa jàpp ma yow. yow jàpp ma. péré xaaral ma déggoo parce que. yow weeru koor ñu weeru koor ñu tëgg yow yow yow yow baabu yow. dina faj ci nag yow sa koor yàqu na léegi nag sagam da ngaa feebar feebar feebar ba feebar nag tey nag da nga feebar yow sa koor yàqu na ku maa ngi woo médecin bi ñu piquer la dix piqûres par force ñu piquer la kenn piqûre ma yow boobu li ma am boo ko amoon jël li ma am boo ko amoon jël loxo yi ma laal bu la laaloon nga xam wóor na yàlla bu la loxo yi laaloon eh, nga def lu raw li ma def